asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 8 janvier 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi sunu làmb nag tey fa la ñuy xëy doore ko yëglekaay bi nag tey fa mu xëy ñëw mooy ci diggante Modou ak Ama Balde. combat royal ba daal daa mel ni fi mu nekk nii day ak lëndëm da ca na saraax dugg ca ndax nag ak amam fi mu nekk nii moom mooy coow li ndax dana am mu mel ni kii nag Ama Baldé day dafa mel ni yëglikaay bi jàpp na ne day est-ce que du delloo vingt cinq millions ya nga xam ne nii jotoon na koo encaissé maanaam ñu joxoon ko ko ci ab xaalis loolu daal daa mel ni fi mu nekk nii loolu yëglikaay bi xëy tey sampal ñu ko ci ab laaj waaye am na koo xam ne moom combat ba mu ngi cay wax muy biram ñing yore meneen mbër ma nga xam ne mooy Modou lu ma war a jàmmarloog Ama Baldé biram day na leer ba leer xaw ma delloo xaw ma arrière wala baraake jëm gauche wala droite waaye am combat bi moom na leer dara mënu koo empêcher combat bi moom incha allahu rabbi biram ñi ngi nee am moom da koy def nee na ko nga delloog lu mën a xew a ci yem moom bëre moom dana am ku lekk avance daal da nga tëdd pom loolu waxi kii nga xam ne moo di biram ñi ngi la keneen koo xam ne nii moom fan yi moo xëwoon ci sunu làmb ñaari fan dafa wax muy ëma seen wax ja nag mu raxoon ca ka nga xam ne moo di tafaatin jàpp na itam adversaire de taay la ngir moom tafaa nag moom xëy na di ko tontu nee na ko daal di leer ba leer day yow ëma seen yaa ko gën a tey te yaa ko xam xam nga ne day man ak yow combat la waaye tafaat yemu ca de ne na maa ko man maa kopp doole te bis bu jëlee sama xaalis wala mu lekk sama avance moom ne na bu keroogee dana am problème boo xam ne nii du xam fu mu koy waxee ji ne na ko nag li leer ba leer wax jooju ngay wax yow Eumeu Sène jërut nga di ko wax di ci sori ñëwal nga jël sama avance waaw parce que nag wëri adversaire ak yooyu moom dafaa daa ne jëru ko sama adversaire nga adversaire de taay nga kon li des mooy lekk avance bi rek nga ñëw sëgg ñu bëre benn combat boo xam ne moom la tribune moo ci ñëw muy diggante booy Niang ak Ama Baldé mu mel ni ki nag dafa gis ne daal loxo Balla lañ bëgg a wañ ngir mu jël kii nga xam ne nii moom moo di booy Niang laa Tribune moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu mu mel ni ki tamit ba tey fa nga xam ne nii mooy ca Leewtoo TV bu ñu fa demee moom fekk nañ fa vidéo boo xam ne daal ka cay wax mooy Boubacar Niang bu sunu lamb di tamit ab promoteur jiite Ama Events nag Boubacar nag mu ngay wax ca làmbam ja waaye yemu ca de ñëw na ci historique boo xam ne bu doy waar la ci li indi diggante Modou ak Ama balde ku jégu metti ga ca ne ba tara tara tar topp leen ay ati at ba tey ji ñu continuer di ko dund mu mel ni que loolu tamit Boubacar Niang moo xëy ñëw dina ko wax waaye ba tey bu ñu demee fa nga xam ne mooy ca Leewtoo point net moom Assane Ndiaye wala boog ka nga xam ne nii moom mooy Assane Ndiaye bu Baol production daal daa mel ni yaram mu dafa tàng ndax nag ginnaaw ba mu indee mbay gu gi ak maam la ngel joon mu ngunjaan daal la jël boole ko grand bañik ba nekk ca école de lutte Boy mu mel ni que moom i daal mu nga continuer di taxawal ay combat am waaye keneen koo xam ne tamit mu taxawal na combat boo xam ne bu neex a neex la muy combat espoir bu rëy rëy muy Sam Mbaye bu Caaroy Sam nag kulifay numéro 2 bu caaroy li jël boole ko ak général bu faas mu mel ni ki tamit booba combat daal moom promoteur ba mu ngay xam ne daal le 4 avril la ko fas yéene tëgg muy combat boo xam ne bu tara tar la keneen koo xam ne tamit andi na combat muy ka nga xam ne moo di prince caat bu booy bambara daal la jël boole ko ak mot ja bu yoof mu mel ni jooja làmb tamit prince moom da koo taxawal régulariser ko le 26 avril daal la ko fas yéene tëgg waaye ba tey daal promoteur ñu nga continuer taxawale combat ndax jéey seen moom borom jéey production itam taxawal na beneen combat boo xam ne daal mooy diggante jara deux boram daan ak ki nga xam ne mooy mbaytin deux nekk ca école de lutte mu mel ni ki daal kon fi mu nekk kii moom combat ya ñu ngay continuer taxaw ñii moom li leen marqué wala li ñu def mu marqué atum 2019 mii jeex mooy écrit face yëglikaay bi di sunu làmb ñëwaat foofa nee daal li leer ba leer moom dàquk Papa Sow 18 décembre nekk nañu marqué atum 2019 bi waaye taxawloo ko nga xam ne rëg-rëg a moom la Gris Bordeaux def mu mel ni ki daal yëglikaay boobu tamit ñëw na ci mbir mu mel ni ki noonu waaye kenn koo xam ne moom 10 millions ya mu teg daal moom Moussa Gueye nee na li leer ba leer daal objectif ba mu am daal wala yéeneem mooy teg lu toll ci ñaar fukki millions ci làmb loolu daal moo di yéeneem jamono jooju nag caaka fay moom jiital na ay nagam ca joof yoor trois 3 ba le 6 janvier dicté fa ay luwaam wan gaa yi fa nekkoon ne leen maa leen man daan leen mais bi nagam yóbbu ko wax na dëgg noonu mu ko defee la ko Sadio Mané defee moom itam dicté na ay luwaam Riyad Mahrez nga xam ne moo di Mohamed Salah dem na seenub dëkk wan leen ni nit maa leen man nangu ballon door ba indi ko fii ci senegal mu mel ni ki daal kon tey saajo la ñuy wax maane maane bi yow daal loo ci mën a dégg sagal nga réew mi fierté nga yal na sa jàmm yàgg ballon door bii di ñëw yal nang ko gañewaat gañe bu Europe gañe yi ballon d'or yi ballon yi d'or yi d'or yi door yi d'or yi d'or man lii laa wax ci yow yal na saw fan gudd te nga wér ak ku la ko ndax nag sagu sagub réew mi la kat maar. moo ko waa Leewtoo TV ni leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu naa la sa rafet na. waaw maa ngi lay fay Ndeye Coumba di la jaajëfal di nuyu internet yi ñuy suivre ci Leewtoo TV yëpp naan la merci waaw pile pile bi nag moom kenn jaar xam nga boroom Zik FM waaw c'est le meilleur parmi les muy Saliou Khoule sama rakk sama doomu ndey moo ma xool daal jox ma bii ne ma baax na ci seddaay bi maa ngi koy nuyu di ko jaar wax di nuyu internet yëpp encore une fois. xanaa bii ngay yóbbu fay ne AIBD si teeru Sadio Mané ba. waaw Sadio Mané moom bu ma amoon tey yéeréb or sax dama koy sol teeroo ko Sadio maane moom soo bëggee dëgg-dëgg <laughs> maa ngi nuyu Balla Gaye bi mu may mu may tooñ quoi naan ma Babacar yow daa mel ni bëgg nga Sadio ma ko waa Balla parce que yaakaar naa ne yow moomu di ma wax sa yaa ma gën a bëgg ndax gis naa sa sa sa ci moom. yaa ngi dégg euh, bëgg bi nag du dara lu dul kani rek muy doomu Sénégal sigil sunum réew comme li ma waxoon démb rek mu nekk nit bu yaru nekk muñkat kat puis nekk liggéey kat puis li ma gën a neex ci moom it du complexe parce que complexe mooy lan tey nga yóg jóge ci benn village yaa ngi dégg di ñafe di ñafe ba yàlla teg la tey ci àddina bi ñëpp xam la am na ñoo xam ne yooyu su su leen arrivé genre Babacar yi dañuy làq dëkk ba ñu dëkk yaa ngi dégg waaw dañuy làq ak yaay naan la fii lañ di wax yu ci bokkul moom nag Bàmbaali lay incarné yaa ngi dégg xam nga Bambaly fi mu ne ñëpp xam nañ fan mooy Bambaly grâce à Sadio Mané te xëy na bu ko neexoon mën a doxee beneen tànk man jikko yooyu laa xool ci moom man naw ko yar bi teggi ni ak liggéey bi te noppi te ñàkk bëri wax bi yooyu dafa dafa am solo dafa am ay jeunes yoo xam ne ni il faut ñun pousse leen ñu dem ci kanam yaa ngi dégg ay Waly Seck ci bokk mën nañ ko tudd parce que Marien ku ne xam ne ne du ab dëkk la yaa ngi dégg dëkku cosaan dëkku cosaanam way juram la ak yeneen jeunes yoo xam ne bëri nañ fi dem dégg naa ku mel ni suñu papa Youssou Ndour wax ko RFM yaa ngi dégg am na ay jeunes yoo xam ne dañ leen a war a pousse pour ñu avancer parce que affaire bi xam nga loolu mooy tax ñu mën a jëm ci kanam jeunes yoo xam ne ñu ngi créer emploi ñu ngi yokk seenum réew yaa ngi dégg di embaucher ay di leen fay ay salaire ñooñu dañ leen war a may doole ñooñu kenn waru leen a faqatal ay Sadio Mané yi ay ay xam nga comme ni mu waxee ay Waly ak yeneen jeunes yoo xam ne ñu ngi ci yeneen domaine ñee ngi ci commerce bi ñee ngi ci feneen ak feneen ba ci kii fii ñu nekk nii muy pap Thialis Faye mi ndax jeune la yaa ngi dégg ay bari nañ su ma leen dundum du ñu jeex dañ leen a war a pousser ñu gën a jëm ci kanam mais loo ci mën di dégg daal Sadio moom xamu nu ko soo yi waxee waaye man Babacar moom bég naa ci moom te yaakaar naa itam képp kuy sénégalais bég nga ci Sadio Mané. loolu am na solo Babacar ni ñëw nag si làmb ji sunu làmb moom te dafa xëy di def samp laaj naan est-ce que Ama Baldé ginnaaw bu ñu jàppee Luc Nicolas est-ce que Ama Baldé du delloo 25 millions avance yu ko muy dem fay euh, muy muy am problème ak justice Babacar. waaw maanaam ndax amaa dina ko delloo wala est-ce que du ko delloo wala da koo bëgg a delloo. est-ce que du ko delloo waaw bu dee est-ce que du ko delloo day ah ñun de bëgguñu mu delloo ko man boobu man daal ma sañoon la ma la waxoon démb mooy sama waxi tey rek combat bi bii daal Ama Modou gii man ko damaa ñaan yàlla mu am léegi ni ko lay génn tëggal ko boppam man daal lii lay ñaan ci date bi nga xam ne ci lañ ko jàpp man day ko mba faal waaw. Birame ñi ngi nag dafa mel dafa jël contre-pied wu euh, Modou ndax démb Modou Lo euh, ki nga xam ne Ama Baldé nee na euh, combat Modou Lo dafa ne combat di mun taxaw tant que Luc Nicolas mi ngi si yoon si si loxo bi yoon Birame ñi ngi nag ni moom nee na combat bi dina am. waaw moom daal am gi laay ñaan rek waa wax ji daal moom mooy man daal loolu laay ñaan coow li bëri na ci fi mu nekk nii waaye yàlla na am daal Ama daal bu mu delloo yaa ngi dégg Modou itam bu mu delloo nañu ñaan yàlla daal li génn tëgg combat bi daal Euh, kii nag euh, dafa dalal suñu laam na dafa dalal ki nga xam ne mooy Tapha Tine comme li ñuy wax rek tontu du forox euh, démb Eumeu Sène moo génn wax si moom te nag nee na mi ngi génn daal si suñu laam di tontu ki nga xam ni moom mooy Eumeu Sène nee na Eumeu Sène du moom moo koy wutal adversaire ndax démb wutal na koy adversaire nee na yoonam nekkul si carrière am bu ma ko wutal adversaire te nee na combat bi dëgg coow lu coow lu mooy moom ak Eumeu seen waaw <laughs> nee na bu mu ko wutal adversaire ah waaw wax waaw loolu moom am na droit wax ko parce ëmma tey yaakaar naa ne potentiel adversaire Tapha Tine la yaa ngi dégg yaakaar naa kon su leen làmb boole su ëmma ne da koy wutal benn adversaire loolu xam naa ne Tapha ko nangoo dégg ki noppam déedéet moo tax mu ne ko du moom moo koy wutal adversaire ah, parce que ñoom ñaar actuellement làmb da leen a boole comme li ma la waxoon laay waxaat rek làmb ji dafa laaj tey ak Eumeu Sène ni ñu laaje Ama Baldé ak kii ba mu taxaw noonu la làmb ji laaje ñoom ñu jaxasoo bëre comme lu ñu koy waxee rek mais bu ñu fi nekkee li daan am di am li daan am di am day dem ba daal da ngay reeba tas quoi mais xam naa daal Tapha ak Eumeu moom làmb ju war a mën a neex la. Euh, keneen ki nga xam ne nag journal bi joxe na information boo xam ne amateur yëpp moom la xaar muy princesse Sokho ginnaaw mu toggee ñetti at tegul tànk si làmb ji wala boog tëggul làmb ñëw na nag ak combat bu bu neex diggante Modja ak Thiat pour le 26 avril prochain incha allah. waaw nu ñu koy wax ahlan wa sahlan ndax prince itam yaakaar naa ne ci làmb marqué na ci empreinte am wax dëgg yàlla ku ne xam na ne PABC Events moom ay yàgg na fesal Iba Mar Diop ak ay combat yu mag a mag yu neex a neex yaa ngi dégg yaakaar naa ku ne yaa ngi rappelé wu déclaration presse ba ca Iba Mar Diop ak garam bu vert son rouge ba drapeau Sénégal bi. asalaamaaleykum asalaamaaleykum <laughs> presse si soxo ñu koy nuyu di ko ziar kon tey su indee ëndee Modja ak Thiat loolu itam vraiment combat bu logique la combat bu jaadoo jaadu la mu mel ni ki daal kon yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba le 26 avril rek que Euh, keneen ki nga xam tamit taxawal na combat muy Assane Ndiaye ñaari mbëri nag dañ leen doon gën a xam si bëre simple mais bi yoon nag si bëre door la ñuy euh, fas yéene yëngu muy diggante Ngel jon ak ki nga xam ne mooy Kalmu Nour combat ba taxaw na Babacar. waaw am na solo mbëri simple yi faw ñu bëri seen biir ba dajoon waxoon na ma ko noonu na ma ñoom mbëri simple yi dafa jàppoon ne moom bu ñu bëggee dem ñoom faw ñu nangu bëri seen biir te gis nañ ko bu yàggul ci diggante Serigne Ndiaye numéro 2 ak ki nga xam ne nii moom mooy euh, Libidor tey ñu gis ko ci Kalmu Ndour ak ki nga xam ne mooy Ngel John Assane Ndiaye jaar fa ah ñu koy ñaan moom tamit Assane Ndiaye parce que itam vraiment mu ngi taxawal ay combat yoo xam ne vraiment amateurs yi soxla nañ ko lool lool lool dëgg dëgg Euh, suñ jógee nag si sunu laam nañ dem fi nga xam ni moom mooy euh, tribune tribune daal dafa ne Balla Gaye comme que nag moom nee du bëreeg VIP yi est-ce que tamit kii rek nga xam ne ma taxaw si kanam muy muy Boy Niang moom rek moo fas yéene taxaw si kanam maanaam muy jeune espoir daal. waaw maanaam daal seen espoir bi ñuy nar a wañ loxo bi daal ngir mu jël ko kon. comme que VIP yëpp. Balla Gaye kon léegi booy bi rek ka dese pour mu mën ko jël. mais Balla daa mel ni sax moom est que fi nekk nii moom waxul waxut daa mel ni waxu giri la wax sax de waaw loo ci mën a dégg nag ñoom ñaar moom comme la ma waxoon rek combat la waaye lii combat li tax combat bi doon combat moom ci Balla lay dépendre maanaam parce moom mooy nangu combat bi wax dëgg yàlla bu ñu waxante ci cadre lamb wax ci may sens Balla am na droit may ki nga xam ne mooy Boy Niang sens pour ñu bëri ndax day neexal lamb rek loolu suñ jegee nag si tribune yi dem fe nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net ñu ngi xamal ni comme euh, Sambay euh, te taxawal na aussi combat des des jeunes espoirs diggante Kulifay 2 ak ki nga xam ne mooy général bu fas waa Sam ñu koy nuyu di ko ziar moom di suñu frère ñu koy nuyu ah moom yàgg nekk ci lamb di bay waaram ah combat bu neex la tëgg moom tamit promoteur yi daal ñu ngi taxawal ay combat yu amateurs yi soxla Kulifay ku ko xam-xam ko ak ko tàngooram ak njàmbaarteem la ma doon wax ne pànk la. pànk la général nag nekk na mbër moo xam ne ni moom euh, mën naa ko tudde meex sedd ray la moom moom nu nga koy gis noonu mu xaw a kii noonu dafa xaw a doy waar muy combat bu neex a neex kon Sam daal moom itam pour le 4 avril jooju ñu ko ci ñaan yàlla mu génn ci alhamdulillahi rabbil alamin dañu fekkee lépp Lamine Babacar nag si kàddu la leen di tàggoor dina jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay Merso nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Astane déjà Brahma chéri Khadija Diallo di ki nga xam ne mooy Mbaye Seyd nuyu ki nga xam ne mooy Khoudia Seck chéri euh, Asek depuis Italie aussi maa koy nuyu di ki nga xam ne mooy. Euh, Abdou Gueye depuis les États-Unis Baye Fallou jàmm gën papa yi maa ngi koy nuyu di ko jox wàccu waayam naan ko jërëjëf gis naa teranga bi di nuyu ki nga xam ni mooy samay doom maam jaara Penda bébé Rokhaya bébé Fallou maam jaara ak ki nga xam ni mooy bébé Moussa Babacar. waaw ndeysaan noonu lay demee ah Ndeye Coumba Fall di nuyu ñëpp waaw di nuyu ñëpp internautes yi duñu leen mën a fàtte mais comme ni ñu ko waxoon sànq. yaa ngi dégg waaw maa ngi koy nuyu waa borom Italie maa ngi koy bëggee bu baax a baax di nuyu képp ko xam ne daal yaa ngi siifar Leewtoo TV rawatina ñi nga xam ne ñoom kon ñoom lab su liggéey ak Salif Silam ak ah ñoom Thierno Malang Jemme xam nga ñëpp dañuy kii Ndey Kumba moo tax bu reetaan faw ñu leen di nuyu internet yi du mën a ñàkk Binta Kebe xam nga ñoom ñëpp dañ leen di nuyu Ousmane Ngiraan gars yi xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Lamine Diop Abdoulaye Mbaye ah Abdoulaye Fall Sidi Traoré Abdou jaxate ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu ñu limee dinañ juum ñoom tuuti Yaay Sarr ak ki nga xam ne mooy Asi Diagne sama série ca Nouakchott Asi Diagne maa ngi lay nuyu borom KMB benn sama dem duñ ko fàtte mais di nuyu tamit Kempes doomu ndeyu Yàggamaar ak sama benn doomu ndey bu nekk ca Sine ñu koy wax Pape Diagne ñoom tam maa ngi koy nuyu bu baax a ne tamit ñoom ñooy waa marché Petersen yépp rawatina nag di jël tey teg ko ci loxo Mor Diouf mu ko képp kuy commerçant te nekk Petersen maa di leen ziar di leen ñaanal jàmm di nuyu ñëpp ñoo xam ne daal ñu ngi ñuy suivre à le monde Saliou Khoule moom duma ko ma a fàtte xaal bi xullee maa ngi lay bëgg bu baax a baax non maître Pape Sène kooku mooy sama kilifa kooku sama kilifa la kooku yàllaa ñu boole waaw ca xale la woon ba tey yàlla yóbbu ko fi mu nekk di ko ñaan yàlla mu gën a yokk maître Pape Sène yàlla na jàmmam yàgg mais yàlla na ñëpp am jàmm. Amin Babacar kon ba jox leen rendez-vous si kanam si teeru Sadio Mané ba.